rasulu manhajil qadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kaddu yi ci gungeb gàmm gi eh, dama koy eh, adressé njaboot gi ñi nga xamante ne bi may seen jëwriñ ndax li ñu may nettali nii moom la Serigne Moustapha wax bu Moustarchidine ci gàmm gi loolu ci niñ ma ko nettalee doo doonul loo xamante ni bi lu jar kenn di ko kenn di ko metti lu wala yu demee noonu déedéet dama daan wax njaboot gi rek te foofu xam ngeen ni ay mbokk ak i soppee ñoo fa nekk muy mustarshidin wal mustarshidat bu dee moom ci boppam mi ko jiite moom ñi mbokk ak ñëpp foofu ay soppee fa nekk wax dëgg yàlla ak i mbok moo tax nag bëgguma ku dégg ay waxam ku wax bu nekk ak na nga koy déggee waaw xam nga kilifa bu waxee ba nag te xamoo fu mu teg wax ji eh, Euh, noo koy interpréter man dama bëgg koy interpréter waxuma moom waaye man sama ko nekk booy interpréter wax interpréter ko positivement bañ ko interpréter négativement te interprétation bi sax jarul véhiculer ko jaru ko jarul véhiculer kilifa du wax ba noppi man de pourtant loolu waxoon naa ko fi newoon naa kilifa bu waxee ba noppi waaw fa mu teg ay waxam bàyyil ko ko fa tegal ko fa bu ko jéem a tegal feneen waaw man li ma leen bëgg a leeral daal mooy ay jàmbur sax xam nga bu fekkoon dañ ñoo tooñ du nu fayu dañuy baale waaw te lii gisuma ci ak tooñ. waaw ak kilifa bu jóg di wax ah te nga yàgg dégg muy wax itam te ngeen yàgg dégg li may wax ci moom ah ngeen yàgg dégg li may wax ci moom yàgg yàgg ngeen a dégg may wax ñoom Badara ak ñoom Malick naan leen waaw sëñ bi war naa ñëw defal benn conférence euh, waa diwaan waaw ndax ci temps savant nangam a ci nangam te loolu dëgg la waxuma ko pour bëgg lu ko neex waaye njaboot gi daal damaa bëggoon ngeen xam ne foofu moom <laughs> aw yiw rek lañ ñu loolu bu ngeen ko xamee rek mu baax waaw bu ma gis kenn kuy jéem a wut benn bu jëm ci waxi kilifa rawante naag moom loolu daal laa leen di dénk yéen njaboot bi